dal leen ak jàmm pënd bi ci diggante Diop Iseg ak Dieyna Baldé Mamadou Diop ñu gën ko xam ci turu Diop Iseg mu ngi wéy di teggi tuuma yi nga xamante ni moom la ko yoon di toppee bokk na ca tuma ya nag mu di wàllum pédophilie détournement de mineur ak corruption de mineurs yi les accusation yépp kii di baayu Abiba bi weddi na ko démb ci àllarba ji bi muy jàkkaarloo ak juge bi xibaar bi nag journal bi di Le Soleil moom moo ko xam xamle yëglekaayu national bi nag mu ngi xamle ne kii di PDG groupe ISEG bi nangul benn yoon li nga xamante ni moom la ko yoon toppee ci audition yi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi ba léegi kii di Mamadou Diop ISEG dafa gàntaloon proposition yi nga xamante bi proposé proposé woon nañ ko yu ci mel ni jël en charge doom ji nga xamante ni dañoo jàpp ni moom am na ko ak ki nga xamante ni moo di Dieyna Baldé bu Sen Petit Gallé ci fàttali nag Diop ISEG jotoon na déposé ab liberté provisoire waaye juge de la chambre d'accusation bu cour d'appel bi daf ko gàntaloon ci ndigalu juge huitième cabinet d'instruction jamono ji nag Diop ISEG mu ngi ca prison bu Rebeuss depuis le mars